bettul kenn ñu ngi ko doon seentu ndagam ministre de la justice mooy jàll te yu ci ñu mel depuis assemblée bi ticc 12 septembre ba léegi bés bu ne ñu gis yu xaw a mel nii loolu nag lu assemblée dama jàpp ni que bërëb bu waxtaan la ak débat maanaam indi fi ay tawat ak ay euh, préoccupation askan bi diko djema jéem wutal ay pexé sakale pexé di waxtaan ak gouvernement bi mun nañu nag réeroo ay gis-gis yéen sax gis ngeen ni yu ci gën a bëri maag gouvernement bi bokkuñu gis-gis waaye dañu am sañ-sañu wax ko bu ñu ko mënutu lay wax rek c'est suñu toogaay fi amatul solo te léegi mënutuñ fi waxtaan daanaka parce que xeex ak xuloog saagante moo fi am ci côté yëpp na nag ñu waxante dëgg wax dëgg aqulaay taala ma jàpp nag aussi au delà dafi ñu nekk ci saal bi ku ci nekk am na ay kilifa yu la yebal ay parti politique ay mel ni ay taxaw Sénégal ñu sommes ay PASTEF ñu melni ay PDS ñu melni ay APR euh, gouvernement bi une ñëk am responsabilité ak parti au pouvoir pour que calme am calme. Nous ni ñom dañ koy nous té néwuñ ci waaye tamit bu Sénégal est au bord de l'Assemblée nationale discrédité wu c'est un risque majeur pour le Sénégal je répète limay wax ni moy réew yu mu am muy continuer di dem pourquoi ñu bëgg assemblée nationale Melni, gouvernement Melni mel ni ko neex ba pare armée moom yaru rek ak tegginu ak toog bu yàggee waa armée bi dañuy ne ñii nga xam ne dañu dénk réew mi ñuy saa caaxaan ñun nañu donc tamit topp gars yi même bu fekkee ne dañ la provoqué di créer kawu permanent dafa mel de da nga bëgg yow kawu bi continuer ba armée ñëw parce que li xew Afrique réewu Afrique yëpp bu fekkee ne Sénégal dañu ne musul am coup d'état musul am ay problème c'est que aussi homme politique yi am na taxawaay yu ñu musul am mais saga gi ak xulo yi côté yëpp la amna ñu ci gëna ki nak man waxna fi dénoncé na fi kérok daam bi parce que man man so wala bop daf may attaqué en permanence mais lolu du affaire wu warul nek affaire personnelle dañu wara un moment donné élevé wu xol nation bi wara faté wara xam solennité wu moom lii ñu nek wara nek dans le qui de pugilat permanent des deux côtés yeen ay observateur ngeen xam ngeen ni li wax limay wax ni nak dina ci dégg lu après mais Sénégal mom mo nek ci situation bo xamné suñu dom yi suñu ki dégg nañ fi ay ministre ñu wax da ngay fenn kan mo am droit aussi wax ministre da ngay fenn bu nekkee biir assemblée nationale aussi ñun nek en tant que député dañu wara jox orme ku nek citoyen bu ne parce que tous les citoyens sont d'égale dignité bu ñu wax di citoyen bu ñu rawati na nak ay kilifa diine euh, ak leneen mais citoyen bu ñu saga muy président assemblée muy ministre muy président de la république bo xamné d'accordum ak mom nous avons jox orma parce que bu dul loolu ñun député waruñu ñu jox orma té ñun foofu député ñoo règlement intérieur nous dañu wara jox orma ñep te gis nañ côté yëpp donc gars je pense que c'est ni kilifa parce que apparemment li fi ne mom gëw ni mën na am ñu euh, solution fi rek président assemblée bi est dépassé les présidents de groupe sont dépassés nous détruit totalement l'image du Sénégal. Pendant que les Lions font des prodiges, pendant que des Sénégalais font des prodiges et essaient de vendre une image euh, positive du Sénégal, chaque jour, depuis le 12 septembre, l'Assemblée nationale est le lieu où on utilise les plus mm, euh, vilaines insultes et injures. Ce n'est pas dans les arènes de lutte, ce n'est pas dans la rue, c'est à l'Assemblée nationale qu'on collecte le plus d'injures. Et d'autre part, il y en a qui sont plus, qui sont plus en vue que d'autres, mais c'est de toutes parts. Et je ne pense pas qu'on puisse attendre, en l'état actuel des choses, du président de l'Assemblée, des présidents de groupes et autres, la capacité de, de, tenir leur, groupe respectif ou le, président de l'Assemblée d'apporter des solutions. Je l'ai dit l'autre jour, euh, on l'avait averti avant même que le premier incident majeur ne survienne. Moi-même, je fais l'objet d'insultes de temps en temps. Mais ce n'est pas la dimension personnelle qui importe. On doit s'élever au-dessus de nos propres personnes, essayer de faire preuve de dépassement et de, de, penser à la République, de penser aux enfants qui nous regardent, de penser au monde qui nous regarde, au lieu de donner de nous-mêmes une image désastreuse. Quand on est dans cette situation, tous les pays africains qui ont été dans cette situation où une auguste institution comme l'Assemblée nationale se met dans la boue, après c'est l'armée si nous ne sommes pas capables, nous civils, de régler nos problèmes, de trouver les consensus, d'observer les règles de, fonctionnement d'une démocratie et d'observer les règles de bonne conduite. Le consensus, d'observer les règles de, de fonctionnement d'une démocratie et d'observer les règles de bonne conduite. C'est l'armée. Je ne vois pas pourquoi on peut demander seulement à l'armée d'être sérieuse, rigoureuse, de saluer les gens, d'observer la correction, et nous-mêmes, on se comporte comme on veut. Il faut que cela arrête avant qu'il ne soit trop tard. On entend du tout maintenant. Et je dis de toute côte, on insulte des institutions étatiques, président le traite de menteur, ministre menteur, à tout moment. De l'autre côté, on, s'en prend aussi à d'autres personnalités de ce pays qui sont elles-mêmes convoquées à leur insu dans le débat politique. Parce que aussi les gens convoquent trop souvent leurs propres chefs religieux dans les débats politiques euh, de l'Assemblée nationale exposant ces euh, responsables à des, des, des réactions euh, de, part et d'autre. Il faut qu'on arrête de convoquer nos propres responsables euh, religieux à chaque moment si on veut les protéger. je, ne dis pas que ça doit une, être une raison d'insulte. Il faut que la sérénité revienne de toutes parts. Sinon, je ne vois pas pourquoi les jeunes qui sont dans la rue devraient se comporter mieux que nous. Je ne vois pas pourquoi l'armée devrait se comporter mieux que nous. Je vous remercie.